wansur alayna xazaa'ina raxmatika yaa arxama arraximin yaa rabbal alamin mbokk yi bàyyi xel ci seen rajo asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw santee suñu borom subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi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 mu yomb ci yow yal na yomb léeg sax bu ñuy wax dañ naan lu jafe la ndax bakkan ak seytaane ak bànneex ñoom ñi nga xam ne dañuy taxaw diggante nit ki ak boroomam naan ko doo fi doo ko fi amee doo ko fi amee doo àgg mukk doo am mukk ngërëmam nga xam ne liy tax sa dox yeex sa diggante ak sa boroom boo ko seetloo am na yu laxasu ci say tànk téye la fas yéene rek ne la doo dem waaye nag dangay ngay dér dérug ne ko nag doomatee dem loolu yitte dëgg la laaj yal nañu ko yàlla yombalal tënkal ñu seytaane moo tax nit ki di ko muslu boo déggee ñu naan audu billahi min asheytaani rajim la muy tekki du dara mooy yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci seytaane seytaane moom nga xam ne dafa sampoon ndëndam keroog wax yàlla ne ko ñi nga ma jëndeel danaa la woon ne jëruñ ko ci moom ngay làqu ci suñ boroom mu musal la ci moom ndax bul fàtte ne dafa yaatu woon ci biir kër yàlla lool am fa wàcc waaye ñu nawloo ko waaye dafa juum dafa def erreur erreur bi mu defoon na nga fexe ba yow nit bul ko def waaye na nga fexe itam ba bul yëg sa bopp ndax looloo ko yóbbee li ko dal mooy rek yëg boppam ko dal yëg boppam ak fuuy ndax yàgg mu yàgg ci kër borom bi subhaanahu wa taala tax na mu jàpp ne buñ ko waxatee defal wala bul def wala kii gan la dañ koo bëgg a teg sama kaw mu nar a yàq ab liggéeyam moo tax bul nangu mukk ki ñëw tey di yàq sa liggéey seytaane looloo ko dal te bëggoo mel ne moom loo yàgg-yàgg ci kër gi moo xam barabu liggéeyukaay la bul ne kii dafee ñëw bees ñu jël ko teg ko sama kaw nga nekk di xeex loolu ba yàq la nga jot a def lépp jigéen dana sëy ci kër góor góorlu ba am njaboot góor góorlu ba sonnal boroom kër coono bu ne waaye keroog bañ ko takkalee wala ba boroom këram amee beneen soxna léeg-léeg ñu ne ba mu ko takkalee wujju ca la liggéeyam bépp yàqu lam jotoon a def lépp ca la yàqu ndax seytaane da cay jaar man manee ko balam tabaxoon fukki at wala fukki at ak juróom wala fanweeri at ca gannaaw lii dolleeku si ci biir sëy bi rek moo ñëw yàqu ko loolu ëpp naa def dafa mel ne nit ki daa war a dem ba ëpp loolu maanaam am mat gu tol ne sama programme moom kenn du ko yàq lu waay def nag say sa mbir la yàlla ñu yàlla jàppale ñoo ngi nuyu baax a baax soppee baax yëpp di leen bégee di bég ci ni ngeen ñuy toppee di bég ci rafetlu jotaay bi ngeen koy rafetlu ànd gi ngeen ci ànd ak ñun saa su nekk suñu jur wala di Baye Ibrahima Fall ca Touba Gueye ñu ngi koy nuyu di ko nuyu waa tool ba yëpp ak mboolem ñi nga xam ne ñoom lay àndal liggéey bi waaye di ànd ak ñun jotaay bi saa su nekk di ñaan borom bi subhaanahu wa mu yokk koo defal wér ay barabam defal ko mboolem ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel baax démb maa ngi doon waxtaane lu jëm ci wàllu maandu yàlla nañ ko yàlla defal ndax yombut maandu moom léeg nga dégg nit ne da nit ñi ne ku maandu la woon wala ñu ne diw e maandul waaye baat bi wax ko noonu moo gën a yomb xam li muy tekki moo gën a yomb itam xam nan lañ koy dunde ndax dafa am loo xam ne moom lañuy wax ak njàmbur ak nit ku ñu xool ne ko ab jàmbur nga jàmbur mooy koo xam ne danga ko naan maanaam du sa mbokk daa jàmbure nag mooy daa boolewut boppam ci yëf yi am mbir mu man doon lu xumb xumb du ci boole boppam ñu ne de moom ku jàmbure la maanaam ku boolewut boppam ci yëf yi la moo tax buñ ne la diw de ab jàmbur la ci ñun mooy xëy na du mbokk muñ ne bàyyee ko jur wala doomi ndey la wala doomi nàngam mënuñoo lijjanti liñ bokk ak ñun ñu ne kon ab jàmbur la loolu taxawaay la boo xam ne daa selanglu ci mbokk gi waaye yi xew ci pénc mi nag selanglu gim ci selanglu dindi ci ab loxoom tiim ko di ko xool nga xam ne lum xumb xumb bu ca yoonam nekkul di ca dugg ci la ñuy koy door a tàggee ne kii kat ku jàpp ak njàmburam la lu baax la waaye jàpp sa njàmbur kañ lay baax mooy bu nit ki jàppee njàmburam ci lu yoonam nekkut waaye li sa yoon nekk nag bul ci jàpp sa njàmbur man raa mun munkaran fal yu xayyirhu la hadis ba wax kon doo jàpp sa njàmbur doo jàpp sa njàmbur yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku gis ci yéen naka su dul noonu na ko soppi na ko soppi moo tax boo àndee ak euh, suñu wayjur Assane Diir yal na ko yàlla yokk wér ca Casamance buy dox ci mbedd yi lu mu gis te muy loo xamante ne neexut borom bi mu nekk mun kar bu ko làmmiñam waree tudd da ngay gis mu def ko léeg mu ne hee yéen da ngeen a jàmmante kaf waaye jàllale waale message su diine ba ñooñu yëg ne dañoo war a teg kol seen bopp bi nit kuy def naka su dul noonu wala ku romb wax nangam bu ko defee mu artu la donte benn fan lañ def ak moom waaye loolu gisoon nañ ko ca moom ci doxalin woo xam ne moom lay doxee loolu mooy bañ a jàpp sa njàmbur ci nga xamante ne yëpp ay munkaraat la yu ne ci pénc mi yittey doomi aadama dëgg la war a doon ñun boo seetloo nit ñi li ñuy tuddee jàpp sag njàmbur te ko tuddee ak maandu bokk na ci li yàq penc mi nga xam ne nit sañ naa sol loo xam ne aw yaramam day ni ci bitti waaye gannaaw da ngaa maandu da jàpp sa njàmbur sa yoon nekku ci moo xam yaa moom sa entreprise sax mu ñëw di liggéey si waaye comme nee ngaay da ngaa maandu ci moom wala yow da ngaa am tolérance wala da ngaa am dënn bu yaatu loolu du la déranger da nga koy bàyyi mu def nu mu bëgg def waxe nu mu bëgg a waxe solo nu mu waxee nga naan l'essentiel daal li ma war a liggéeyal ma ko liggéeyal déedéet man raa minkum munkaran fal yu xayirhu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax nee na ku gis lu jaaduwul ci pénc mi na taxaw ci dindi ko dindi ko dafa am ay niveau moo tax bu ne woon dindi ko man ngaa taxaw ne ko man nan laa koy dindee dama am doole ju ko dindi mu ne la boo amul doole ji am nga jee kon dindi ko ci sa làmmiñ mooy bu dee boo waxee mu jag da nga caa war a wax lii xew ci pénc mi ku am kàddu da nga cee war a wax ñun li xew léegi nga xam ne kilifa day fatu ne ci yàlla daanaka amul lu muy jàngale amul message bu muy joxe saa yu génnee di wax soxlaa ma ko tax di wax wala lu aju ci tarixaa ma ko tax di wax wala ay toolam wala liggéey bu muy santaane loolu bokkut ak ndono yi nga xam ne moom la fi mag ñi bàyyi woon mag ñi sosoon yëf yi koo ci jël jërul may lim seen yitte mooy lu mas a doon luy naqari borom bi ci pénc mi ñu yendu caa dox ba ñaqtooy xëpp am na ci mag ñoo xam ne ci réew mi dañ leen a rey te xeex ngir bañ munkar sax ci pénc mee tax ñu rey leen nit nag li gën a seer ci li muy joxe bakkanam ak alalam la te am na ñu ko joxe ba tàyyi ndax bañ munkar sax ci pénc mi kon buñ demee ba tey ñun ñi ñëpp koo ci teg sa baaraam ci dënnam buy bàkku danaan diwéy sama maam waaye lii xew ci pénc mi ci li naqari woon sa maam lépp la neex xam nga ne sa maam day sa maam ci sa deret waaye doo sa taalibeem maam bari na ñoo xam ne fi mu ne mag ñi fi nekkoon seeni maam lañ waaye ñoom yoruñu programme mag ñi xëyuñ ci gontuñu kon duñ seen taalibeey maam suuxatuñ ko au contraire sax dañuy gor garab gi ndax baaxaayu mag ñi ak nangu yàlla nangu seenub liggéey moo tax yëf yi nekk fi ba léegi waaye bi bu set ñu sotti ci loo xamante ne nii bu doon garab guy dee la da nga naan dee na ba carya daanu waaye borom bi subhaanahu wa taala moo dul yàq yëfam moo tax ak maandu du loolu ak maandu du loolu maandu mooy bu fekkente ne li nga war a wax yaa ko war a wax te sa kàddoo ko war a defar ñu ngi lay déglu nga wax ko waaw danga nga koy déglu nga wax ko ba noppi muñ la cay fekk kilifa du bañ ku ko ku ko diŋat kilifa du bañ ku ko corriger kilifa du bañ ku teg ci moom ay kàddu yoo xam ne naka sudut noonu kilifa du bañ loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne mooy kilifa kilifa yi dañ ko doon wax naan ko dangaa dof moom mi nga xam ne mooy kilifa kilifa yi wax nañ ko ne ko ab taaxuraan kat nga lu ne wax nañ ko ko xam nga lu taxoon ñu koy wax mooy da doon wax li jaaduwut ci penc mi ni leen jaaduwut bàyyi leen ko wéetal leen yàlla dong la wax def yàlla muy seen kilifa na doon benn buur ngeen wéetal ko muy kenn waa penc ma lànk kaare waaye mu jaral ko lu nekk loola jaral loola jural ko lu ne waaw mu jaral ko lu nekk loola jural ko ñu wax ko lu nekk yow na nga bëgg a toog ne kilifa diine nga wala yaa mag ci sa famille wala yow yow la ñëpp di déglu waaye li ngay wax da bëgg mu neex ñëpp bëggoo kenn mer saa yoo bëggee jóg wax léeg-léeg ñi la wër ñoo lay tàpp tàppal naan la loolu jëru ko boo ko waxee mag mu toll na yow dañ la fiy wax luñ la wër sa wax boo ko waxee mag mu toll na yow dañ lay nangam nangam ba nga mujj ko bàyyi yëgoo li xew da nga koy wax te dem waaw wasbir biir ma asaabak loolu la euh, luqmaan waxoon doom ja bam ko ne digleel lu baax tereel bon da ko wax ne ko muñali la ciy fekk ndax ku tere lu bon ña doon def safaan ba songu la waaw ndax changement dafa metti changement dafa metti te nit ki lim tàmm day neex ci moom ku ko indi lu bees am noonam la lim tàmmu daa neex ci moom xale bi nàmp sax buñ koy feral day jooy waaw weeni yaay ji sadd jamono ji jigéen jey nàmpal muy jooy ba àddunaam tukki ndax dañ koo teree ween waaye tey bi mu demee ba nekk ponkal xam na ne liñ ko doon tere mënu koo dundal ba mu ko fa bàyyee gis na loo xamante ne moo dàq loolu foofu àdduna nag lépp noonu la mel moo tax maandu ak jàpp sa njàmbur du rek li xew ci penc mi nga ne sama yoon nekku ci waaye li xew ci penc mi te nga am ci kàddu da nga koy def ndax dafa nekk loo xam ne dafa gàllu ci saw loos waay jur du ragal njabootam te loolu dafa am am na doom yoo xam ne seeni waajur dañ leen a ragal jékki-jékki rek am complex ci sa doom yi ba mënoo wax ak ñoom dara daanaka dégluloo leen aw waaraate sax ñimewoo woo koo def soññi leen ci waxtu julli sax ñime woo koo def affect saa nga ne nag ñoom say doom lañ yow yaay kilifa gi yaa leen war a jubbanti yëgoole xew bis bu yàlla sàkk da nga yëg ne yow da ngaa am responsabilité mas'uliya taxawu li nga war a taxawee mooy kon nga dindi li nga war a dindi lépp ci saw làmmiñ li nga mën a dindi ci sa loxo boo ko rombee te dindi woo ko ci saw loxo jàppoo sa njàmbur jàppoo sa njàmbur de li nga def noonu bàkkaar la lay jural boo lombee luy lore ci yoon wi nga mën koo àndale ci sa loxo àndale ko boo rombee loo xamante ne sa loxo ko mën a dindi mooy dangaa war a bind mu dañ na nga bind mu dañ bu dee kilifa nga lay xew ci pénc mi te naqari lislaam doon lu baaxut boo bindee président yónnee ko wala nga bind préfet wala nga yén bind gouverneur yow loolu mooy sa war ndax looloo la war na ko bind muy mbind mu leer bu dee loo war a wax nga wax ko ci saw làmmiñ bu dee loo war a dindi nga dindi ko ci sab loxo bu yooyu yëpp amul nag mu ne nga mettit lu ko ci sab xol loolu nag moo mujj ñun nag troisième bi nga xam ne moo mujj te doon bi nga xamante ne moo gën a faible ñun foofa la ñuy taxaw dañu bàyyi ñaar ñu njëkk yi dem taxaw ci bu mujj ba mooy di metti lu naan jamono jii kay daa yàqu rek ci mujj jamono lañ nekk lu ne xew waaw lu ne xew de waaye ñi koy xewal nag yow moom am nga ci part de responsabilité te boo moytuwut bu leen yàlla euh, euh, jàppe nu mu leen def dana la ko def kon maandu lu am solo la. démb bi ma yëkkati jotaay bi ci tomb yi ma doon indi ba agsi ci juróom-ñetteel ba ak juróom-ñeenteel bi ci juróom-ñaareel ba maa ngi la doon wax ne la maandu ci diggante nit ak ku mere mooy li ñuy wax noon nit maandu ci diggante ak moom yaa ayyuha alladina amanu kuunu xawaamiina lillahi suhadaa bilqisti walaa yajrimannakum shana'aanu xawmin ala allaa taadilu idilu huwa aqrabu li taqwa yàlla nee na maandu leen ndax maandu moo gën a jege ak jaamu yàlla moo gën a jege ragal yàlla waxoon naa la ko démb yëmut ci loolu waaye maandu ci wàllu jëflante ci wàllu jaay jënd ci wàllu bor ci wàllu yi ca aju yépp ma jàngaloon la aaya ja nga xam ne mooy aayay bor yaa ayuha alladina amanu ida tadaayantum bi daynin ila ajalin musamma faktubuuhu wal yaktub baynakum kaatibun bil adli wala yaba kaatibun an yaktuba kama allamahu llah fal yaktub wal yumlil alladi wala yabqas minhu shay'a waxoon naa la ko kon wàllu bor nañ ko bind la borom bi wax bi nga xam ne moom laa ciy toftal mooy maandu ci seede maandu ci seede booy seede da nga seede maandu waaye maandu ci wax ju man di doon saa yooyu wax nanga nga maandu ci say wax bul seede ci nit loo xamut léeg nit di seede ci nit loo xam ne xamu ci dara léeg-léeg sax muy seede lu baax ba ëppal ci ba ëppal ci diw kay di wax di wax yàlla nee na maandul boo xamee lu baax wax ko boo xamul lu baax noppil am na koo xamante ne jigéen joj góor gi muy sëyal tey bi duggee ba ci biir sëy bi la gis yi ko metti yëpp te moo ne am na kum ci laajoon xalaat waaye nanguwu koo wax lam xam ci ku góor ki naan man kay duma ci ti diggante bi di yàqu ñu naan maa ko yàq damay maandu loolooy maandu bu ko defee nga naan ko yii moom kay ku baax la te xam nga ne waa ji baaxul moom kay ku jàpp njàmburam la te xam nga ne waa ji lu mu dem moom kay ku lewet la te xam nga ne waa ji day dóore day saagaa dafa tàng maanaam sikkam yi mu am yëpp yow contrôle ba nga wax ba noppi nag ne man wax lu rafet rek moo a ci neex loolu du ak maandu loolu ak maandu maandu gi mooy bu la waa ji wóoloo ba doy loola nga wax ko li nga ci xam te yàlla tax su fekkee laaju la xalaat nag waxuñ la nga sol saw daal dem naan ko xanaa xamoo ki ngay bëgganteel xanaa xamoo ki ngay bëgg a dugg mooy kan loolu moom bu boobaa nag mooy ñàkk maandu piir waaye maandu piir mooy saa yooy wax na nga wax wax ju maandu saa yooy seede na nga seede seede ju maandu wa ida qultum faadilu walaw kaana za xurba loolu la alxuraan wax nee na bu ngeen di wax bu ngeen di wax na ngeen maandu ca wax ja waaw na ngeen maandu ca wax ja de kuy wax na nga maandu ci li ngay wax bul ci fay bor bul ci leble waaw bul ci fay bor bul ci leble parce que waaye nag mu ne maandu gi na nga ko def booy wax donte ki ngay wax sax sa mbokk la donte ku la jege la allahu akbar donte ku la jege booy wax ci moom sax na nga maandu ci moom bul ëppal ci moom bul ëppal ci moom bul wax ci nit loo xamut bul weddi ci nit luñ la wax nga weddi ko jàpp ne yow euh, gannaaw xamoo ko rek wérutit bul doxe noonu nanga nga maandu borom bi nee na booy seede it nanga nga maandu wa man azlamu man katama shahadatan indahu min allah yàlla nee na kenn dàquta tooñ ki nga xam ne day nëbbu seede ki nga xam ne day xam ci nit lu baax ba noppi teg ci ab tànkam sede safaan ba wala ñu woo ko ne ko kaay seede mu bañ seede dañ koy nangu ndax jaamu yàlla la waaye na nga seede li nga xam wa ma na illa bi ma na booy seede na nga seede li nga xam ne moom nga xam yàlla nee na kenn dàqutu tooñ ki nga xam ne day bu seede kooku kenn dàqu koo tooñ waaw yàlla nañ ci yàlla musal seede mooy doon témoigner témoigner nit saa yuñ la wooyee ne la kaay témoigner ma ci nangam te nga xam ko na nga dem taxaw na dem taxaw buñ la laajee nga wax lu baax la nga ci xam bu mbir moo fekkee la nga wax ko waaw waaye nag léeg moom nit soxla ko mu tëgoo ticc rawatina boo demee ci yeneen réew yi mas nañoo dal 2016 ak imaam Moustapha Niang bu Sir Mang voyage yal na ko yàlla yokku wér taxaw ci buntu hôtel bi rek sama jigéen bu baax ba lay soxna Sooda Caam moom la benn oto laal bi mu koy laalkat am na naar bu taxaw nga xam ne moo ñu woo ñun ñëpp ñu daw ñëw mu taxaw ak jàllabeem bu rafet waaye bi police ñëwee ñu commencé wax ñi nekk ko fekkee naar bi dane moom fekkewu ko ñu wax wax mu ne moom lan <laughs> xamul nu mbir mi deme daal di boot ay loxoom dem taxaw fële mën a xalaas waaw <laughs> wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min allah geneen maandu gi ci des nag am solo lool mooy maandu gi nga xam ne mooy dox diggante jaam bi ak boroomam mooy dox diggante jaam bi ak ki nga xam ne moo ko bind bayna al abdi wa xaaliqihi wa huwa ahla darajaat mooy maandu gi gën a rëy mooy nit day bàyyi xel digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala maandu gi nga xam ne moo war a dox seen diggante li koy firndeel mooy mu dëggal doon gim doon ab jaamu boroomam ba noppi nangu koo jaamu loolu dinaa la ko indil ci ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi ci wàllu woowu mooy li nga xam ne moo war yaram wi ci jaamu yàlla gi lu mel ni julli ak yi nga xam ne moo ci aju mu maandu ba di ko def bu ñaareel bi mooy li nga xam ne moo war bakkanam bakkanam mooy ruuxam mooy xolam mooy xelam mooy pas-pasam loolu mooy pas-pas bu wér boo xam ne moom lay fas ci digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala bu ñetteel bi nag mooy góorgóorlu gi muy góor góorlu ci jëflante digganteem ak nit ñi góor góorlu gi muy jëflante digganteem ak nit ñi nga xam ne day bàyyi xel boppam bàyyi xel mboolem mbindee fi suñ borom yi subxanahu wa taala mu bàyyi leen xel ñoom ñëpp loolu mooy maandu gi nga xam ne mooy dox diggante nit ki ak boromam lu am solo la maandu dundug nit lépp dafa bokk ci yi nga xam ne da koy téye moo tax jikko yi nga xam ne moom la waxtaanee di jikkoy euh, jullit bi maandu daa bokk ci jullit yi nga jikko yi nga xam ne benn jikko gënu ko ci yére yi moom maandu moomu tux la bu. jaanibal hawa alal fikri day yóbbu nit ki waaye daf koy notal lépp loo xamante ne nii mooy dox digganteem ak maandu bànneex da caa bokk bëgg daraja da caa bokk bëgg a feeñ da caa bokk gàtt ab dégg da caa bokk gàtt aw gisin da caa bokk yooyu yëpp day yóbbu nit ki ba du mën a maandu digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala bu ñu yàlla mayee ñu dund ba suba yàlla ñu yàlla may ñu dund ba suba te weesu ko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 seen mbokk Mbàkke Sylla ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di Al Misbah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.